soo daan lu ngeen gëm bay gaaral suñu yónneen sanga soo daan mooy bay looy bismillahi rahmani rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين mbokk yi محمد ماديو اك سيلو دي لسنين غناو بي ني تخاوي تخاوي بي خاوي ياغ توسي نخ تخاوي نومو تول رك كي وقتاني سيدنا الامام بدينا الحمد لله رب العالمين دا ني فك تي خيتو تول بري yu lëkkoo ak suñu wér-gu-yaram waaye lëkkoo itam ak jafe-jafe àdduna yàlla mi dara tëw subhanahu wa taala gannaaw ba muy wàññee ndànk-ndànk tolof tolof yi amoon ci yaram bi te mu feeñ ci nañ doon waxee ak ni ñuy waxee sax ba léegi dontale alhamdulilah rabbil alamin wàññeeku na ba ñu mën a wax ak yéen ci loolu mën a dégg wala lu ñu doy ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ali mooy defe naa ne limaam mooy rasulaay du ñëpp la neex li doy waar nag mooy xëy na sax ñu bokk ci kër gi waaye loolu du ma sorewum maal yu dafay xaar ba mu sotti mu waxtaan ak ñi mu war a waxtaan ci mu ñi mu war a waxtaan waaye de am na loo xamante ne maal yu ji rus na sax ñu koy jiiñ pas pour moom mais pour l'imaamu alayhi salaatu wassalaam waaye loolu waxtam bu ñu sa yeggee incha allah comme ñu ngi ci Mouhamadou Mahi dana ñëw waxtaan ak mbokk yi beneen bi ci des mooy limaamu du mbokk limaamu ab yonent la foofu lay daxee e mbiram waxuma ko ku mbokk bërki démb dama tëdd sama kër fële sama dëkk bon ca dégg lu doy waar ma génn gis lu sorewul ak limaamu loo xamante ne dinaa ko ñaawlu fii balaa may dellu ci borom bi subhaanahu wa gis nga wolof bi nee na wuute bi ni mu la gisee noonu lay بيرو لما ومادي عليه الصلاه والسلام نيو في السنغال سا خيل فيم لا يوبو مو يوف نيك سي يوف اجوما منو خم لو جولي ندخ te xale bi su mënee def yoof waxtu kay waxtu julli aljuma c'est que fa mu jógee yaruñ ko lan mooy ajjuma digganteem ak limaamu Mahdi pour mu jox bés boobu ak waxtu wo orma bi ci war waaye ñew wara julli aljuma do xam looy julli ndax ay xale te xale yi ma waxaat ko ci kaw ci kër lañ jógee jógewul ci kër sax orma bi ñuy war a ormal limaamu lay alayhi salaatu wasalaam war na tax bu dee dañuy defar comité ngir appel ñu mën def comité lu bon bon ngir ajjuma jéem a organiser addunaat ajjuma bi foofu ba ku fa ñëwit bu la nanguwul ne limaamu lay mooy ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu naw la waaye ni ma ko waxee sànq ma baamtuwaat ko wuude bi ni mu la gisee lay ñawalee limaamu lay rasulullahi loolu diggante limaamu lay la ak yàlla d'abord ndax da koy mën a yónni mbaam bañ ko yónni digganteem la ak borom Limaamu Laay ñëw na fa mu war a ñëw ñëw na na mu war a ñëwee ñëw na ak ñi mu war a ñëwale dox na li muy dox dem na yoonam kon ku am looy wax dafa mel ni danga bàyyi ba pare ba mu romb Limaamu ba pare nga am looy wax mu war nag mu war يوم كم الإمام عليه الصلاة والسلام يو يا دس الجم دول الإمام مول دس الجم نحوانا جسنا دفع أم لمن لك يلا من اللي ين ين أنت بي وركو سودة ممو ين الإمام عليه منو كيودني war waaye yow mu yow Limaamu Laay moom nga gëm yow bu mu jaral xarta tànk tubéy yow nga xam ko mbala nga xam ko yow yaa desee lu la war diggante yow ak sa bopp diggante yow ak Limaamu Laay diggante yow ak yàlla gis nga nañu yëlee Limaamu moo baaxul Limaamu Laay nee na man la démb man la tey foofu la wax ñàkk boo koy layee Limaamu moytul kon la muy wax moytu leen xiil الإمام عليه الصلاة والسلام القرآن ميدون كم تانا ديمب موم موكو بنغاية الإمام عليه الصلاة والسلام ديكو من الليل مولا يوموكو غم توب تي موم لمن الليل تي الإمام عليه موي الإسلام بيتي ببوم لو شي واي واخ te cosaanawul ci alxuraan sañ na koo delloo te nag limaam dundam li naa mu nettaayam dafa dellu ci yàlla subhanahu wa dellu ci alquran dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi mën ngaa foog nag mën ngaa yaakaar waaye yow mën a yaakaar ma samaak yàlla subhanahu wa taala mi ne bind te limaamu ne moom lañ ko yónni moo ko yónni loolu tax wax naa ko xale yi keroog ma nee jurbal dinaa ko xat gis na tailleur bi ni mu la gisee noonu la lay ñawale wuude bi ni mu la gisee noonu la lay dagale sa dàll su fekkente ne limaamu laay rasulullah moom yàlla ko yónni jaam yàlla bi taxaw fële weddi ko seetal lim ko weddee ndax alquran la seetal lim ko weddee ndax ci moom la walla ci limaamu laay la alayhi salaatu wasalaam waxoon naa ko fi ma waxaat ko limaamu doo ko waxal dara bu dee tudd yàlla bañ nañ ko ba boole laay ak si kara muy zikrullahi bu dee zakka doo ko wax dara xanaa kay ëppal xëy na ndax dégg naa sax ne ni muy génnee azaka sarax la waaye azaka cosaanam sarax la woon daañu si dellu si bon la nga seet ko ci julli jullit limaamu lay alayhi salaatu wasalaam foofu lañ tolloon ak yéen boko xolé ni muy topé bis bi ak jant bi ba ba jant bi tëdd amul lolo ci wax bala mu julli qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla dena tektal ci bala mu julli limam ali sallallahu alayhi wasallam ni ñuy waajali julli bu julli gi jeme ba jeex wa xada wa ida qadaytum manasikum فاذكروا الله كذكركم اباءكم دوينا كي لي مام لاي تجولي مو فالي وور جارنا تنخ كون خمنا لكلو بما ديو لكلو اكوير وور تباسكي جاتنا نتي وقتان lëkkaloo gi mu lëkkaloo ak corriger waxtaan ci ak Limaamu Laay waaye tabaski googu dafa lëkkaloo ak at mi yéex ndax ma ngay xew ca Dul Hijja muy fukkeelu weer ak ñaar te yàlla di fàttali ne ba mu bindee ba léegi weer yi matul fukk ñett waaye fukk ak ñaar la kon am na solo wu yox ngir bañ ci sol ci loolu dañ ci dellu siwaat tey ci at mu bees mii loolu la ñu waxtaanewaat ndax fan yi weesu kese maa ngi wax sama kër dégg naa nekk atu jullit yi day waaw lu tax balaa ngeen di wax ku la am antum bi xayr muy sooywu bona ne ngeen di xaar fukkeelu fan ndax ndaxam at mu bees yi dugg na ba daw fukki fan ngeen doog a wax bonne année mooy lu xaw a waar waaye soo ko delloo ci tabaski yi ma leen den wax pour delluwaat ci li ma leen wax ne su jaam yàlla bi gisul li fi limaamu dul gis def yow laayeen war nga xam lu fi limaamu doon def waxoon naa limaamu toogul ak toogam yonent bi toogul toogayam ne xaaral ma dem Sénégal xaaral dem Yoff déedéet yàlla subhanahu wa taala borom alquran moo ko waajal ci alquran foofu la dellu sëg yonne bi ci saa yo weer bi ñu génn mbooloo muy weer bi mujjee ci ak jullit yi ñu ngi ko tuddee borom aj bi dul xijja yàlla dina fàttali ñu lay laaj an anil mahilla ñu ngi lay laaj ci weer yi alxuraan wane ne màndarga la qui bisiko a dit abi akitam abi wate koko mun commencé yawm la awal bis bi jitu ci ashura euh, ngeen djegal ma bis bi jitu ci a julli bi du commencé euh, wor bi a dañuy dem ba juróom-ñetti fan ci assura ak bidoo ko commencé dama leen fooxoon ne diine gi ku yaakaar ne làmbatu la bu la neexee waaye koo ko seetlu xam ne yàlla xam na li muy def xam na waxtu bi mu koy def xam na fa mu koy def ndax su at bi commencé du fan loo yéex yéex armal foog nga armal diggam da nga bëgg aj ci aj boobu lu ko may benn at lañuy wax waaye du at boobu ndax ëllëg sa kese muy juróom-ñeenteelu fan dafa indi taxawaayu arafat te yonent bi doon wax ne subhanahu wa taala alxaju arafa ajjal Arafat waxoon naa ko dinaa ci yëllu siwaat ngir li uutale aj ak umra la ca tegu nag mooy boo jógee juróom-ñeenti fan dem ci juróom-ñeenteelu fan dem ci fukkeelu fan dafay fàttali justement yow mu assura bii ñuy wax mu fukkeelu fan bi ñuy séentu déet ci weer bi mais ci at mi kon kay ci weer bi ci boppam ndax weer bi njëkk ci atum jullit yi fukkeelu fan ba moom mooy yowmu ashura ñu fàttali nag lu doy waar ndax jéemoon naa fi wane lëkkaloo bi am diggante tabaski ak korité bokk na ci ne li fi indi delloo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci tabaski mu bokk ngant bi nga xam ne borom bi nanguwul ab saax nanguwul leneen lu dul woor woor googu suñu boroom mbëgg lëkkale foofu tabaski bi ak euh, subhanallah suñu boroom lëkkale foofu sarax bi nga waroon def ca aji màkk bi ak weeru koor koor googu limaamu alayhi salaatu ba mu jeexee téye na fa nit ñi ñetti fan yi ak juróom-ñaari fan yi yàlla waxoon ci alxuraan waxoon naa ko bu ko aajowoo dañ ci yilliwaat baamtuwaat ko téye na fi ñetti fan ak juróom fan muy ak juróom-benn euh, juróom-ñaari fan muy lëkkaloo benn diggante koor ak tabaski waaye ba mu leen yeewee gannaaw bu mu leen téye ñetti fan yeeruwi leen juróom-ñaari fan ba ñu dellusee mu fukkeelu fan ba fukkeelu fan boobu laa wax ne dana dellu ci xel ci fukkeelu fan bu ashura bii ñuy waaje feete waaje benneen

delloo ci fukk bële fokk nga delloo ci fukk yi limaamu indi woon parce que bu mu amee fukki fan ba jàmmeer yi ñëwee la limaamu def sadaxam boobu mu wax boobu man ma wax ne kuy laaj lu fi yonn bi defaat loolu la ñu defaat wala loolu bokk na ci yonn bi kese moo ko mën def keneen moo ko defal du benn yonent bu ko mën dugg moo tax ma soxla woon yàlla dogal li mu dogal waxtaan ak mbokk yi ci diggante tabaski ak arafa gis nga tabaski sunna maam Ibrahim la du sunna yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam sunna ma Ibrahim motax wala fi sax dinañ wax ne tabaski ñetti fan la pourtant hajji gi yonent bi waxoon na ne alxajju arafa te xaraf arafa taxawaayu benn bés la kon benn bés la matu ko sax. يوم عرفة لوخ بس بي بتشك بي عرفة مو يتغوى يتغوى تبلاس مو بطول عرفة ويتغوى يبتشك بي فين نل تغوى يبتشك بي فين نل نمو مو ورا عرفة كيني بو جنتي بخسي تج ما نم تو بتشك بخسي دم عرفة جيخنا كان دو فو جولي تمسك fukki fan yi kon fukki fan yii ñett xam ne moom mooy doole at bi danga koy gisaat ci fukki fan yeewoon ca Arafat danga koy gisaat ci limaam lay alayhi salaatu wasalaam keroog ba ñu waree at bi ko suñu borom di yël ba mu waree bi weeru koor gi weesoo kon ñu ñëw ci fukkeelu weer bi moo teg ci fukki fan te nag dinaa faral di wax ne du làmbatu ndax weer wi moom moo jur fan yi wala bon fan yi ci biir weer wi la nekk waa kii naafila di tëjee naafilam fukkeelu aaya bu fukkeelu suraat dawaakum yéen a gën a xam kooku làmbatuwul ma ne nawaafil yi laayeen di naafila lu laayam du naafila sax dinaa faral di wax ne ku xam solo gi te limaamu lay alayhi salaatu wasalaam moo ko joxe kese doy na solo laayam bu xam solo gi doo tëdd te julloo shafaa julloo witr ku julli shafaa ak witr nag mën nga am njort ne xanaa julli na suba xanaa julli na tisbaar takkusaan timis mën nga njort ne xanaa julli na gee balaa muy julli shafa ak witr ci yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam li mu wax fàttali wat waa yoof lan lay njëkk a seetal boo wuyee sa borom mooy julli su baaxee lépp baax sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma ne yow laayeen bi lu bon bon war nga gëdd bi nga jox Seydina Limaam nga wane ko waa ji gëm Limaamu ak bañ ko gëm du moo yàgg moom moom borom bi la su fekkente ne ci borom bi da ko teg moom borom bi la su fekkente ne coobareem la moom ak borom bi waaye yow mi gëm Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam yow mi ko nangul ne moom la woon dee moom la moom la woon tey ñi ma ko jéemee ak waxtaan Yesu. war ngaa jéem set ci alquran fan la cosaayoo war ngaa set ci sunna fan la cosaayoo waaye chef googu war na cosaayoo ci diine maanaam xew-xewu diine bu nekk war nga mën set lëkkaloom ak limaam lay alayhi salaatu wasalaam ngir dëggal ko ci wootam bi mu woote woon ne yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa sallam lii mbokk yi la maa di woon balaa muy damaawaat na mu ko waxtaanee ak seetlu ca la mu waxtaanee daan dellu si ci yonent yàlla Isa xëy na sax boobu nasaraan day doon

ni vous qu'un nous, ay prophètes kese nous, mat nous, cent vingt quatre mille su nous, nous ñu nous, la nous prophètes nous, ndax nous, prophète nous nous nous wax nañu ne am na ñaar fukk ak juróom yu alxuraan tudd alxuraan fàttali nañu ne ulil azmi juróom lañu ci yonent yooyu ndax xam ne jëllu sig yonent yàlla isaa kese la ñuy wax waaye li ko fi del delloo si yonent yàlla Isa du coobareem li ma wax sànq ci limaamu lay alayhi salaatu wasalaam du na yonent yàlla Isa moo toog ba mu soob ko mu ne damay dem ca àdduna mooy li wax ne diine ku foog ne làmbatu la du du làmbatu

لم في يالا وخون باتاي موغي في يونت يوي ما تود بوكو واي كوتي يالا جوخ تيري كومو تي جوخ تيري جوخ لا سنة امنا لولا وار لولو نك ñoñu kessé la war warul benen yonent maanaam ku yàlla yónni jox la téere joxu la téere bokkuloo ku yàlla yónni jox la téere yam foofu bokkuloo waaye bu la joxee téere ak sunna bokk na su la joxee téere ak sunna te indiwul yonent sa ginnaaw bokkuloo waaye ku yàlla yónni jox la téere jox la sunna li may wax ay wolof la Sénégal laa koy waxee mu ngi ci alxuraan bokk nga ca ñooñu waxtaanee woon naa ko fi te Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko jox na ko téere jox na ko sunna wax bi kay mooy ndax yónneen yónneen nañ ci ginnaawam dañ ci lu soir waaye Isa mi ñuy wax di lu seen yàlla yónnee ko jox na ko téere am na sunna Muhammad feeñ ci ginnaawam kon bokk na ca yonent yàlla Isa yonent yàlla Moussa ko jiitu yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko téere jox na ko sunna usa ñi usa Isa ñëw na ginnaaw yonent yàlla Moussa kon Moussa ak Isa lu bon bokk nañ ca loolu moo tax may faral di wax ne li nga bëgg ak li yàlla wax du benn moo faral may moo tax may faral di wax ne mag mu toll ni yàlla tëral programme am lii su amee lii dana am sax nga gisuma ko waaye ki ko gis sax nga gis naa Limaamu Laay Gisan Isa. Gisan que Meryem aleyhissalatu mbokk yi kon nañ ko ni yi ngir commencé suñu waxtaan la waaye layen bi Je ma baamtuwaat ko lu la fi ne indil la ko لأن العربية لغة فقط لا شيء لا شيء أكثر أبول عرب دورو لك لمتى سنغال موي القرآن عرب لا ولا عرب لنجي لك تنين نيو عرب بارين نيو لو خامتي ديبول waxoon naa ko comme damay récapituler ne yàlla moo bind nit ci lu mu deret yàgg nañ ko wax te dëgg yàlla waxu ko kon dafa war ñun ñu jàng Alxuraan dafa war ñun ñu jàng arab bi ñu fay làkk waaye su fekkente ne dañu bëgg a taaw ci limaamu laay mooy rasulaay kese te mënoo ko layal ndax làkk ba ñuy làkk muy làkku alquran du sama wax alquran moo ko wax arab la jéemoo ko xam su fekkente ne jéemoo xam ci alquran fan la limaamu nekk foofu ak li war li ko li ko waral mu dellusi si yu mel ni yi ma leen wax ci ajjuma yi kese moo fay nekk maanaam di nga wax di nga wax dëgg ah kay moom mooy rasulullah ndax dégg naa sax léegi ñu ngay d'accord ne Isa Muhammad mooy baayam mais loolu xam nañ ko waaye bu ñu ko kenn nettali ma yaakaar gàcce la man de duma nangu doon ab ñu may jàngal Seydina Isa kenn duma ko jàngal dangay wax baraka yi soo delluwul ci alxuraan man ma dellu ci alxuraan won la lu Isa mën na doon doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci man ka koy doog gis da koy doog gis waaye ca njëlbeen leer na ne Isa doomu yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na nag loo xam ne ragal ko yëpp yàlla la yàlla du tëral li mu tëral du teg ay condition yi mu teg condition nga am loo ciy ragal

moom mi jàng dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci li ma la nekk léegi ci yoon yi nga xamante ne faw faw fokk ñu dellu ci te nekk ci dëgg bi ndax moom doo dëggal Moussa waaye moom itam yonent yàlla Muhammad dëggal ko mu nekk diggante yonti yàlla Muhammad ant yonti yàlla Moussa kon mbokk yi maa ngi yaakaar seeni ñaan ba léegi seetlu ngeen ko mu ngi amélioré ni may waxtaanee ak yéen waaye maa ngi xaar ba léegi ba tey itamit continuer di sàkkandiku seen ñaan ngir yàlla subhanahu wa taala may ñu yeggali ci gën gi ñu ma koy waxee ki ñuy waxtaane muy sallallahu alayhi wa wasalaat wasalaam ala rasulillah